Serigne Cheikh Fall Serigne Cheikh Fall mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1933 nag ci dëkku maamam boobu nag di Njiig Fall ci dëkk boobu nag la feeñee jamono nag ci atum 1933 muy doomu soxna Mariama Guèye ak Serigne ab sa Fall am na nag ñu mbokkal nag soxna a Guèye nag ak Serigne Moodu Absa Fall mii ñu mën cee ràññee nag soxna Siini Fall bintu soxna a Guèye bintu Serigne Moodu Absa Fall soxna Aram Fall bintu soxna Mariama Guèye bintu Serigne Moodu Absa Fall soxna Binta Fall Kubra bintu soxna Mariama Guèye bintu Serigne Modou Absa Fall soxna Assane Fall bintu soxna Mariama Guèye bintu sëriñ Modou Absa Fall ak moom sëriñ Cheikh Fall ibnu soxna Mariama Guèye ibnu sëriñ Modou Absa Fall moom sëriñ Cheikh Fall mii nag bi mu feeñee jamono waajuram nag sëriñ Modou Absa Fall Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke nag ibnu Xaadim Rasul nag la ko tuddee ci ak tuut tànkam waajuram jigéen nag di soxna Mariama Guèye sëriñ Amdi nag la ko daa woowee mag ñi nag di ko woowee nag sëriñ Cheikh Fall Mariama mu bokk itam nag ci turandooy Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke yi laataa sax ñuy xuus nag ci moom mii nag di turandoo Cheikh Modou Moustapha Mbacke wi nag di Serigne Cheikh Fall Mariama ñu wax leen nag njaboot gii mu bokk nag ñoom ñooy ñan soxna Mariama Gueye nag mi ko meññi doomu Serigne Demba Mariam Gueye la Serigne Demba Mariam Gueye nag mi ngi dëkk nag ci dëkk bu ñuy wax nag Ngéyeen Mamour waajuram wu góor nag di Serigne Modou sa Fall mi ngi cosaanoo nag ci dëkk boobu nag di Njiig Fall mu bokkoon itam nag ci jàmbaar yi toppoon nag ci ron ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasoul amee fa itam nag lii di ngërëm dëkk boobu mu feeñe jamono nag moom Serigne Cheikh Fall Mariama ñi ngi ko sanc nag ci atum 1796 maamam ju ñuy wax sëriñ Mayoro Ndak Kebe Fall nag mooy ki ko sancoon mu nekkoon itam nag jàngalekatu alxuraan bu mag a mag a mag daara jooje itam nag ay kilifa itam nag jaar nañ fa yu ràññeeku itam nag ci biir réew mi ñu mën cee ràññee nag maam Balla Aysa Mbàkke miy waajuru maam Mor Anta Sali Mbàkke man cee ràññee nag sëriñ maa bu sa awa mbaay mi nekkoon waajuru soxna jaaratullaahi man cee ràññee itam nag ku ñuy wax sëriñ ma sàmba anta ceeboo bokkoon itam nag ci waa kokkiñ dañ faye ko nag cheikh ma sàmba mbàkke ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ci ay kilifa yu jaar nag ci sëriñ Mayoro Fall Ndak Kebe mi yi sëriñ Mayora Fall Ndakebe mii nag moom meññi nag sëriñ Sayer Anta Seck xujja kumba sëriñ Sayer Anta Seck xujja kumba mii nag moom meññ itam nag ku ñuy wax sëriñ Maxtaar Kumba Galo Fall sëriñ Maxtaar Kumba Galo Fall mii itam nag moom meññi nag sëriñ Njiig Muudu Absa Fall sëriñ Njiig nag Muudu ab Fall mii nag moom meññi sëriñ Cheikh Fall Mariama Gueye mii ñii nag ñoom ñoo séq nag turandoo Cheikh Modou Moustapha Mbacke wii ñu fas yéene waxtaane tey jii bi mu matee dal alxuraanul karim nag tombeeg mu nekk nag 1940 ci at moom itam nag la waajuram na génn àdduna doom nag di génn àdduna la jëloon nag benn kaamilu alxuraan jébbal ko nag doomam ju mag ji di sëriñ du Assane faal di ko xamal ne sëriñ Cheikh Fall mii daal bu matee dal alxuraanul karim nga dalal ko ci nag alxuraanul karim ci at moom itam nag di atum 1940 itam la waajuram nag génn àdduna bi sëriñ Cheikh Fall matee dal alxuraanul karim nag ci ginnaaw nag waajuram nag bu fu jógee sëriñ Modou Assane Fall nag mi nekkoon taawu waajuram moo ko dalal alxuraanul karim nag ci kaamil boobu nga xam ne nii nag sëriñ Modou Absa Fall nag bàyyi woon na ko nag mu dalee alxuraanul karim waajuram nag sëriñ Moodu Absa Faal bi mu ziyaare jee seexul xaddim nag ci njaareem àndoon ak soxnaam nag soxna Mariama Géey la ko seexul xaddim nag joxaale woon kaamil ba ginnaaw bu mu ñibbisee njiig faal nag la fob kaamil bi nag denc ko bi mu demee nag bay waaj a génn àdduna nag la foboon kaamil ba nag joxoon ko ab taawam di sëriñ Moodu Asan Faal di ko xamal ne itim nag kaamil bii nag sëriñ Cheikh Faal Mariama mii nag ma tee dal alxuraanul karim nag nga dalal ko ba tey itam mi ngi ci jarbaatam nag Baye Moustapha Dia bu daarul xuddoos ndax waajuru Baye Moustapha Dia nag di soxna Siini faal moo féete woon kaamil ba ginnaaw buñ ko dalalee nag ci kaamilu alxuraan boobu nag ba noppi lañ ko jëlee itam nag ci dëkku waajuram boobu nag di njiig Fall yóbbu ko nag ci dëkk bu ñuy wax nja ci jàngalekatu alxuraan bu mag a mag nag bu fa nekkoon ñu koy wax nag sëriñ Madoun Dia mu wéy nag nekk nag ci loxo sëriñ Madoun Dia nag di jàng alxuraanul karim ginnaaw sëriñ Madoun Dia jóge na itam nag ci dëkk boobu nag di njaa dem nag ci dëkk bu ñuy wax kër Sulay ci suuf soosu nag di njaambur ci borom kër Sulay wéyal fa nag am njàngum alxuraanul karimam ak itim nag lii itim nag di xam-xamam dëkk boobu nag di kër Sulay nag la mujjee jàng xam-xam ak alxuraanul karim mu bàyyi koo fa nag delsiwaat nag ci ron ay magam ci dëkk bi mu feeñe jamono nag di njiig faal laataa muy jóge nag ci dëkk boobu nag di kër Sulay def na fa itim nag ak kiimaan goo xam ne ni itim nag waa kër Sulay itim nag fàtte wuñ ko dafa am menn at nag ci bi muy jàng foofu ak gàmmu itim nag si woon boobu itim nag sëriñ Cheikh Mbacke mi ngi doon gàmmoo nag ci dëkk boobu nag di Louga Mbàkke Gaynde Fatma nag Louga nag lay gàmmoo jóge na nag ci dëkk boobu nag di Kër Suley doon gàmmu ji nag Louga laataa muy dem nag bépp yére nag bu mu amoon wala ay bagage nag yu mu amoon nag ci dëkk boobu nag di Kër Suley ca jàkka ja fa ne woon nag fa la dem nag denc ko fa ma ngi koy dénk nag bu mu gàmmu jee nag laataa muy ñëw nag la dëkk boobu nag di Kër Suley nag lakk mbooleem waa dëkk ba nag lakkale ginnaaw bu mu ñibbisee nag la gis ne daal jàkka ja dong daal moo desoon nag ca dëkk ba waa dëkk ba nag doon ko xamal ne nag Cheikh Fall Marema bi nga xamee ne daal suñu dëkk bi nag day lakk da nga doon denc nag sa bagage yi nag ngir mu mucc ci mënoon nga ñu koo xamal itim ñu itim nag ñu def ne yow mu doon leen xamal na itim nag sañu ma ko ndax aw ma ci woon ndigal lii itim nag def na ko kër sulay nag laataa itim nag mu fay jógee mu wéy nag des nag kër sulay bi am njàngam eggee nag la jóge waar kër sulay nag delsiwaat nag ci ron ëttub maamam di fi mu feeñe jamono nag di njiig faal booba itim nag fekk na xalifa waajuram di sëriñ Moodu Asan Faal ma ko yóbbu woon nag daara génn itim nag àdduna ñaareelu xalifa waajuram di sëriñ Mayoro Faal la fa xalifa ba mu ñëw nag topp nag ci ginnaaw magam sëriñ Mayoro Fall ak magam nag sëriñ bàmba Fall mu nekk nag seenub taalibe nag ñoom ñaar fas yéenee sàmm nag ndono li nga xam ne nii nag seen waajur nag sëriñ Modou Absa Fall nag bana ko fi ak taalibe yi nga xam ne nii itam ñoom ñoo fa nekk mu nekk itam nag seen jëwriñ topp itam nag si seen ginnaaw di leen xoole nag sëriñ Modou Absa Fall rawatina nag sëñ Mayoro Fall mi nekkoon nag xalifa ba ba ci atum 1955 nag sëñ Mayoro Fall nag génn àdduna sëriñ Bamba Fall nag ñëw nag nekk nag ñetteelu xalifa sëriñ Modou Absa jàppe sëriñ Bamba Fall nag sëriñ Modou Absa Fall di ko xoole nag sëriñ Modou Assane faal ak sëriñ Mayoro Fall mi jiitu woon nag sëriñ Bamba Fall nag ci jal bi mu nekk itam nag jëwriñu sëriñ Bamba Fall lépp loo xam ne nii daal sëriñ Modou Absa Fall nag njabootam itam nag soxla nañ ko mu taxaw ca nag ba ñu am ko ba ci atum 1959 sëriñ Bamba Fall nag génn àdduna mu ñëw nekk nag ñeenteelu xalifa nag sëriñ Modou sa Fall wuutu nag ay magam laataa ay magam itam nag di fi bàyyi ko nekkoon na itam nag jëwriñu ay magam ba tax na itam nag fépp foo xam njabootuk sëriñ Moodu Absa Fall itam nag ma nga fa woon daana solowu dàllam itam nag di fa dem di leen nemmeeku nag ngir jëmmi sëriñ Moodu Absa Fall nag ak ay magam moo xam njàmbur bawal nag ba ci saalum diirub nag li fi ay magam nekk itam nag bëggul dara ndax sëriñ Moodu sa Fall nag la leen doon xoolee fanweeri fan nag ci mois de novembre nag ci atum 1959 nag la nekk nag ñeenteelu xalifa nag sëriñ Moodu Absa Fall tombeeg nag ay magam yëpp it nag gërëm ko ba ci sëriñ Maxtaar Fall mi nga xam ni sax xalifa sëriñ Moodu Fatma moo sàkku itam nag ci sëriñ Cheikh Fall Marema mu ñëw nag toog nag toogaayu sëriñ Modou Absa Fall ay atam itam nag toll ci vingt-sept di ñaar fukki at ak juróom-ñaar mu nekki nag ku sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma nawoon ku sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma nag bàyyi woon xel ba tax na itam nag sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma itam nag daa na ko sant itam nag ay liggéeyi liggéey bàyyi xel gu ko sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde ma bàyyi woon xel ak bëgg itam nag gu ko sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma bëggoon taxoon na itam nag turandoo Cheikh Modou Moustapha Mbacke wi nag di sëriñ Cheikh Fall pësteef lool nag ci ëttub daaru xuddoos bi bépp sas woo xam ne nii itam nag ay magam itam nag bayoon nañ ko mu ñëw nag yokk ko ba dolli ci ay sas yoo xam ne nii itam nag moo ko xalaatal boppam fukki tooli àllarba ak juróom-ñaar amoon na ko te lépp itam nag sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde ma rek la ko daa yitte mu wéel nag tukki yi mu doon amal ci bi fi ay magam nekkee moo xam ci njàmbur ci saalum ba ci bawal mu nekkit nag ko ubbeeku nekkit nag koo xam ne nii itam nag ñu baree baree baree bari nag naw nañ ko relation bu mu am ak sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma taxawu itam nag bu taxawu woon nag ay doomi baayam te ñëpp itam nekkoon itam nag ay magam te sàmm gu muy sàmm itam nag ndonal sëriñ Modou Absa Fall ak bëgg gu mu bëgg nag képp koo xam nii nag bëggoon nga nag sëriñ Modou Absa Fall tax na itam na mbooleem ñi ko magoon nag ak ñi mu mag ñëpp itam nag amoon nañu ab cofeel ci turandoo Cheikh Modou Moustapha Mbacke yi ñu mën caa ràññee nag ku ñuy wax sëriñ Madoun Dia di ki ko jàngal alxuraanul karim ci dëkk boobu nag di Ndia sëriñ Cheikh Fall ci dëkk bu ñuy wax nag Touré Fall sëriñ Mbacke Diouf ci dëkk bu ñuy wax Njaareem sëriñ bu jen ci dëkk bu ñuy wax Touba sëriñ Maysa Fall ca Louga sëriñ Assane Guèye noonu ko mag ñooñu fonke woon nag te bëgge woon ko ni noonu nag ni la daa tukkee itam nag ci biir réew mi rawatina nag suuf soosu nag di njàmbur daana dem itam nag ci dëkk bu ñuy wax Paaleen daana dem itam nag ci dëkk bu ñuy wax nag Toogal Njaay daana dem itam nag ci dëkk bu ñuy wax nag Roy Jéey débbi jaw itam nag daana fa dem cekkeen itam nag daana fa dem nag ci njàmbur xambal toob nag daana bu ñuy wax Waadaan ak faneen ak faneen nag biir njàmbur noonu mu daa tukkee nag ci njàmbur itam nag saalum itam nag noonu la fa daa tukkee dëkk bu ñuy wax jëm wéli ci saalum itam nag daana fa dem dëkk bu ñuy wax ñiibi itam nag daana fa dem ci saalum fu ñuy wax mbos itam ci saalum daana fa dem càlle ci saalum itam nag daana fa dem bonja ci saalum itam nag daana fa dem mbuluñ nekk itam nag ci saalum daana fa dem faas barigo itam nag daana fa dem ak Kaolack ak faneen ak faneen ak faneen nag ci suuf soosi nag di saalum noon mu daa demee njàmbur ak saalumitim nag bawal nag foofu itam noonu la fa daa demee tey siir daana fa dem ci bawal dundee wolof itam nag daana fa dem ak yeneen ak yeneen i dëkk itam nag ci bawal mu nekkit nag koo xam ne nii itam nag bari na nag ñu ko daa jàppale itam nag ci liggéey bi nekk itam nag ay taalibeem wala ñu nekk itam nag ay doomi magam ci biir ñim daa àndal nag su masaa dem nag ci turne bi mooy kuñ doon wax nag sëriñ Daam Ndooy sëriñ Madiama Yadd sëriñ Cheikh Modou Lamine Baara Seck sëriñ Gora faal sëriñ Makhtar Diop sëriñ Daam Lo nekkoon itam nag goroom ak leen itam nag ci ay doomi magam ñu mën cee ràññee nag sëriñ Sidi Fall doomu sëriñ Mayoro Fall sëriñ Basiiru sëriñ Maxtaar Faal sëriñ Cheikh Faal téere di doomu sëriñ Muudu Asan Faal ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ci waa Njiig Faal ñi mu sàmmit lépp loo xam ne nii nag ay magam itam nag ba ci sëriñ Maxtaar Faal bépp kóllëre goo xam ne itam ñoom itam amoon nañ ko itam nag mu wéel ko ci biir kóllëre yi mu amoon foofu itam nag ñu mën cee ràññee njabootug sëriñ Muudu Asan Faal nekkoon magam soxna yi nga xam ne nii itam nag waajuram itam nag moo leen fi bàyyi woon itam mu continuer yor leen ay magam wala ay rakkam itam yi mu bokkal sëriñ Modou Absa Fall ñëpp itam nag mu leen di xoole nag sëriñ Jiik Fall na itam nag ci na itam ab ko ko jox te itam nag mi ngi ko ko soxlaa itam nag nag ma ko laaj lu sa waajur sëriñ Modou Absa Fall nag moo ko fi def doomu baayam bi nag ñuy wax maam soxna Fall sëriñ Cheikh Fall Marema itam nag na ko doom lépp luy ndonal sëriñ Jiik Fall itam nag mu sàmm ko kóllëre sëriñ Jiik Fall itam nag mu wéyal leen ñu mën cee ràññee nag sëriñ Mor Samb Fall sëriñ Modou Anta Faal sëriñ Daam Maane Faal sëriñ Masamba Faal Njiika sëriñ Simsu Faal sëriñ Moor Dimbe Faal ak ñeneen ak ñeneen i mag nag ci dëkk boobu nag di Njiig Faal dëkk boobu itam nag di Njiig Faal famille ya fa nekk nag di ay njaboot itam nag mu sàmm leen moo xam njabootug yàddeen mu am ñoom ko lëre gu yaatoo yaatu njabootug ndóoyeen njabootug ngomeen njabootug mbuubeen njabootug ñaseen ba ci njabootug ñangeen ga fa nekk nag lépp loo xam ne nii itam nag am na ko ci tool yi wala mu dikkal ko itam nag ngir sëriñ Moodu Absa Faal xalaat nag sëriñam sëriñ Cheikh Mbàkke ko addiya ak lépp loo xam ne nii nag wërsëgu nawet bi la ba tax na itam nag sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma bind na ko ay lettre lettre nag di ko sant ko gërëm ak itam nag di ko laaj nag ay addiya xari tabaski yi itam nag kenn mënu ko ci woon saa bu tabaski mësaa jub si daanu ko it sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ci ñi nga xam ne nii nag daana ñëw njiig faal ci turu sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma nag daa jël si nag addiya yi ñu mën cee ràññee ku ñuy wax sëriñ ñuy wax nag Baye Mor ñaan nag ci daarul xuddoosa bu gàmmu masaa jot itim sëriñ Cheikh Fall Marema aw nag nag la daa yit sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma ak lu takkoo takku nag ci matt booba luga nag la ñuy gàmmoo ci atum 1963 sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma nag yónnee woon na ko ab lettre di ko ca laaj nag ay addiya nag yuy jëm nag ci jumaay tuubaa ji bàyyi sëriñ faal di doomu sëriñ maxtaar faal nag di doomi magam wax na ne li ko dalee nag ci atum 1960 ba ci atum 1966 boobu itam nag mi ngi bëkk néegu nag ci sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma wax na ne sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma at mu jot daana bind baayam lettre sëriñ cheikh diine di ko ci laaj nag ay addiya sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ku bëggoon nag doomu sëriñ Modou Absa Fall bii la ko bàyyi woon xel la ko amoon itam nag ak cofeel la lool nag ci moom joxoon na ko ak kër itam nag mu nekk nag kër sëriñ Modou Absa waaye kër googu itam nag dafa mujjoon jóge nag ci loxoy sëriñ Modou Absa Fall ginnaaw bu sëriñ Cheikh Fall Mariama nag xamalee sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma na kër gi ma joxoon kër gi itam nag mujj nañ ko joxaat keneen sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma na ko gëneen kër itam nag ci ba nëgëni njabootug sëriñ Modou Absa Moussa Fall itam nag ñoo ko moom fa la ñuy dal itam nag màggal kër ga itam nag màggal na fa ñetti at nag laataa nag muy génn àdduna bëgg goog mu bëggoon gaynde Fatma itam nag tax na addiyee ji mujjee jox nag Serigne Cheikh Mbacke gaynde Fatma ci ñeen fukki junni nag la toll ci atum 1966 mu nekkit nag ku yéemee yéemee yéemee nekkit nag ku tabee tabee nekkit nag ku bari woon yërmande ci mbooleem nag doomu aadama yi mu nekkit nag ku bari baatin kii maan yu takkoo takkoo takku nag turandoo Cheikh Modou Moustapha Mbacke wi na ko am bokkoon itam nag ci taalibey waajuróom nekkoon itam nag ci ginnaawam netti li ne na ne sëriñ Cheikh Fall Marema amoon na nag genn gàmm nag guñ doon defee nag ci Louga mu di ko xamal ne nag maxtaar mbooleem nag ku aju nag ci sëriñ Njiig Fall su guddi jotee sa ruux nag ci sama ténk loxo jii nag lay fanaan ku ñuy wax itam nag sëriñ ma siini Njaay netti li ne ne sëriñ Cheikh Fall Marema nag moo ko waxoon ne suñ boroom itam nag xamal na ko ne képp ku nar faatu saa bu la gisee nag ci sab jë danañ ci bind ne nag yow mii nag duutoo soreeti moom sëriñ Cheikh Fall Marema itam demoon na itam nag ci dëkk bu ñuy wax mbuluñ seeti woon itam nag ay taalibeem ginnaaw bu mu eggee nag la dajale itam nag mbooleem waa dëkk ba muy xamal nag waa mbuluñ dénk naa leen nag sëriñ Modou Gueye Seck mii baamtu ko nag ba muy ñetti yoon ginnaaw nag bu buñ ci tegee ab diir nag la doon xamal nag sëriñ Massini Ndiaye di ko laaj nag ana sëriñ Modou Gueye Seck mu di ko xamal ne nag ma ngi ci dëkk ba mu laaj ko ko nag ba muy ñetti yoon sëriñ Cheikh Fall Marema nag di wax nag sëriñ Massini Ndiaye kon de këram itam nag am na lu fa xew sëriñ Massini Ndiaye itam nag di xamal sëriñ bi ne soxna nag sëriñ Modou Gueye moo génn àdduna kon de lool moom moo xew keroog koy dénk de ca mbuluñ suñ borom xamaloon na ma ne da dafa war bu fa nekkoon ba nëgëni demul soxnaam demul dana ma jaaxal lool ba mu fay jóge nag suñ borom xamaloon na ma da koy wuy si Modou Gueye Seck mi mu daloon nag ba nëgëni itam nag mi ngi dund jamono ji amoon na taalibeem bu ñuy wax nag sëriñ Mama Diagne dëkkoon itam nag ci dëkk bu ñuy wax nag Bondia dafa mas a jotee kenn kam jotee loon nag ñàkk bakkanam nag ci seen jote ba ñu tëjoon ko nag ci kaso bi ginnaaw bu sëriñ Cheikh Fall Mariama nag doon def ab tournée ba ñëw itam nag ci dëkk boobu nag di Bondia laajte ko ñu di ko xamal ne daal dafee jote woon ak doomu aadama nag ba mujj nag faat ko mi ngi tiim nag ci kaso bi sëñ Cheikh Fall Mariama nag di xamal ñooñu rus naa nag ku ma suñu boroom booleel ngir sëriñ Touba nekk itim nag ci ay jafe-jafe man mii jëwriñam nag nekk ci biti di dox nag ak sama sago daal di bind nag ak ñaan nag joxe ko nayit nag nañ ko ko jox ginnaaw bu mu bindee ñaan nga itim nag dafa xamal ñi mu ko doon jox nañ ko booleeg nag ak ñam togg ko buñ fa eggee daal ba jox ko ko bu ko jëfandikoo daal kaso ba ñam nag du ko fa reesee sëriñ Mama Jaañ booba itim nag la génn itim nag ca kaso ba nag ci ay kiimaan nag yu mu def ku ñuy wax nag sëriñ Mouhamadou Lamine Baara Seck mi ngi tim nag ci njiig faal ba nëgën itim nag di dund nee na nag ku bari woon dàllum daa dox guddi la waaye saa bu masaa di dox guddi dafa am nag lu koy dogale ci mbedd yi dafa am génn guddi nag muy dox am nag lu ko dogale nag ngir fas yéene ko fee jëlee dafa geestu rek gis sëriñ Cheikh Fall Mariama nee na nag am na beneen bis itim nag laneen itim nag dajewaat ak moom guddi dafa geestu rek gis itim nag sëriñ Cheikh Fall Mariama itim nag bitti ko loxo bi mu xëyee la ko sëriñ Cheikh Fall Mariama nag doxub guddi nag na nga ko bàyyi sëriñ Mouhamadou Lamine Baara Seck nag ko jege woon itam nag foo leen tuddalee sëriñ Cheikh loxo ndax nag naw gu ñu nawoon nag doomu sëriñ moo Modou sa Fall gi bari na loo xam ne nii nag saa buñ koy wax nga xam ne ñii daal moom li ñuy wax ak yow lu dëggula ci seen xol ki def moo def nag ñu gis sëriñ Cheikh Fall Marema nag yoroon na ay soxna ci biir soxna yim dëkkoo woon nag ñu mënoon cee ràññee nag soxna Faama Lo di doomu sëriñ Maxtaar Lo dëkkoon itam nag ci dëkk bu ñuy wax ndaam jaxate kër mbërgu mook soxna faama ak moo toog nag ak toogaayam ci 1966 bu ñuy wax nag soxna ngoya faal di doomu sëriñ sàmba njaay faal bu paaleen yu mag nag yu sëriñ nji faal yi mook soxna am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee sëriñ musaa faal soxna yi mu dëkkoo woon itam nag njaboot yi itam nag la ci am ka waajuram wu jigéen daa wooye sëriñ amdi faal ay magam magam ak ay taalibey baayam daa ko wooye sëriñ Cheikh Fall Marema waajuram sëriñ Modou Absa Fall faye ko mu Mamadou Moustapha Mbacke mi ngi génn àdduna nag ci feebar bu ko tëral ci dëkk boobu nag di sàkkal di dëkk nag bu soriwul dara nag fi mu feeñe jamono nag di njiig Fall ñu wax leen sax sëriñ Cheikh Fall Marema Guèye mii nag lu tax nag mu génnee àdduna nag ci dëkk boobu nag di sàkkal bi mu feebaree nag wér di itam nag di gën di metti sëriñ Cheikh Mbacco Guèye di doomu sëriñ Baara Guèye Fatim Mbocca la nekkoon nag ci dëkk bu ñuy wax nag kër paate ginnaaw si nag sëriñ Cheikh Fall Mariama mii ci dëkk boobu nag di Njiig Fall ginnaaw bu mu egsee Njiig Fall nag ba gis nag sëriñ Cheikh Fall Mariama leneen nag da ko fiy jëlee fas yéene ko yóbbu ndar nag ngir mu faju ji ginnaaw bu buñ ko waajalee moom sëriñ Cheikh Fall Mariama mu ànd ak nag sëriñ Cheikh Mbaaco Gay ñu fa yéene ko yóbbu ndar nag ginnaaw bu ñu jógee Njiig Fall nag ba egg nag ci dëkk bi nag di sàkkal doon fa xaar nag lu leen mën a jàllale nag ndar kër sëriñ Assane Gueye ci sàkkal lañ daloon ci biir kër sëriñ Assane Gueye nag la génnee Cheikh Fall Mariama nag àndaloon ñu mënoon coo ràññee nag sëriñ Cheikh Gay Mbacco ñu gën koo xam nag ci sëriñ Cheikh Xutbu di doomu sëriñ Baara Gay Faati Mbocco ak rakkam soxna Asan Fall di doomu sëriñ Moodu Absa Fall sëriñ Daam Ndooy bokkoon itam nag ci ay taalibeem sëriñ Góora Fall nekkoon nag goroom di magi soxnaam nag di soxna Ngoya Fall ñii nag la àndaloon nag jóge njiig Fall nag fas yéenee dem Ndar bi ñu egsee nag ci dëkk boobu nag di sàkkal nag fa la génnee àdduna ci teewaayu nag ñii ñu 1386 nag ci gàddaay gi altine fukki fan ak juróom-ñeent nag ci rakkaat ji gàmmu ci atum 1386 nag ci gàddaay gi dëppoog nag muy lundi 5 septembre lon lundi 5 septembre 1966 ñu yëgal ko nag ki mu yaakaaroon di sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma sëriñ Cheikh Gay Mbacco nag moo ko jullee ginnaaw buñ ko dencee nag ci dëkk boobu nag di njiig faal ba noppi sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma yónnee na fa nag ab délégation ci njiital nag sëriñ Mouhamadan Xari Lo sëriñ Modou Lo ma jaxate sëriñ cheikh fall xataaba sëriñ mbàkke juuf bu njaareem sëriñ abdu jabu tuuba sëriñ balla jóob ibnu sëriñ manaar jóob ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñu sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma boole woon nag ca délégation ba bàyyi sëriñ fall di doomu sëriñ maxtaar fall nag di doomam wax na ne itim nag bisub keroog sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma nag moo ko xamal ne ko sa baay sëriñ cheikh fall na génn na àdduna demal yëgal ko nag képp nag ko war a yëkkal sëriñ moustapha dia di jarbaatu sëriñ cheikh fall wax na ne itim nag yëg nañ ne daal xolam tooy na moom gaynde Fatma Serigne Cheikh Diop bokkoon itam nag ci ñi jege woon Serigne Cheikh Mbacke gaynde Fatma wax na ne Serigne Cheikh Mbacke gaynde Fatma moo ko xamal ne demal nag ci rajo yi jumaa ju mag yi nga tàggee fa nag Serigne Cheikh Fall Mariama Guèye mii xamal waa Touba nag génn na àdduna ba tey nag moom mi ngi xamal njabootug Serigne Cheikh Fall Mariama di leen wax ne itam nag bisub keroog ni mu gisee Serigne Cheikh Mbacke gaynde Fatma xolam tooy na nag ci demuk Serigne Cheikh Fall Mariama mii ndax nag ak cofeel nag gu doomu Cheikh Modou Moustapha Mbacke amoon nag ci turan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 benn bis boobu moom sëriñ Cheikh Fall Marème mii itam ci njabootug nag sëriñ Njiig Fall gi nag la bokk moo tax itam nag ci bëccëgu ñaar fukki fan ak juróom-ñaar nag ci weer wi nag di rakkaat ji gàmm ci lañ koy fàttaliku waale nag ci dëkk boobu nag di Njiig Fall ñu ñaan ci turandoo Cheikh Modou Moustapha Mbacke wa ka léppam jébbal sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma yàlla nañu ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram taas ñu itam nag ci barkeem lii di jafe-jafe réew mi itam nag yàlla na ko suñ borom saafara ci dara jay waajuram nag sëriñ Modou Absa Fall amiin Absa Fall amiin Absa Fall